شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وير كور وير القران في لا ميزون دي كوران او سينيغال فمن شهد منكم الشهر فليصم غنشي عندك كردبا تكستيل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته تبارك الرحمن تبا تبارك الرحمن كنت أنا نترب ويرنا نتورنا جمي في تيو يب أتنينغا خامنا نيوي توب جوتاي بي تريو ميك بيتي ميو ci yoon wi leen yàlla ubbil ci la maison du Coran ñëpp bég nañu fii ñu toll ci suba lan ma commencé woone ma la gàcce ngaa la ma la maison du Coran xëy nañu teel daal di fii ñëw ñëpp di bég ci ñoom àdduna gépp di ko seetaan yal na yàlla buur bi subhaanahu wa yaatal la maison du Coran di wax ne képp koo xam ne ñaan nga mën soo àggee kër ga ñaanal la maison du Coran dugg TNT ndax nga toog ci tele bi di jàppee mën a am jëmm yi ci te en direct ku bëgg am jëmm yi ñaan leen di ko war a gaaw dugg TNT képp ku ci mën a dugal sa alal góor góorgóorlul mu dugg TNT ba nga xam ne da ngay toog téye sa commande di ko am di jaajëfal bu baax waa Mbuur ñu ngi leen di jaajëfal bu baax loolu bi si fa am waaye waa koñ bi muy quartier bi nga xamante ne fii la ñu nekkee ndaw waaye ba bi nu màggee ak foo mënti dem ci réew mi wala bitim réew ñu woola ne la dem dem dellu sil fii ñu ngi lay xaar yëf yi ñoo ko moom yal na yàlla fay leen yiw ñépp ubbi nañu seen kër yi at mu nekk nii lañ koy doxale lu fi teew ci ay gan ñu xeeb ko di jaajëfal su may wayjur bu baax El Hadji Ibrahim waaye ak suma ñaari yaayu yu tedd yi Sayida Maryam ak Sayida Khadija jamacakum arrahmanu wa iyaana fi jannatin aaliyatin qutuufuha daaniya sunu yaay yi nga xam ne ñoom lanu tuddee bés bi ñoom ñu jël ko yëkkatiwaat ko bokk ko way jur ya ca daara ji yépp yal na yàlla fay leen yiw nii nu leen ko tuddee yal na malaayika yi àggee borom bi rapport bi yàlla bind ñu ne fii jannatin aaliyatin qutuufuha daaniya ni ko cheikh bi waxee sànq gan yu tedd yi ci bërëb bi ku ma ci siggi ba xool la rek maa ngi lay tudd ci suma xol di ñaan yàlla ne ko awma lu ma lu ma koy fayee fayal ma ko ñu amoon yéene waxtaane fii suuratul xàq waaye cat li nuy dal at mu nekk rek waaye gars dem nañ ba miin ko ndax bés baa xajul ci bés bi li fi daje ci alaam ay nit ñoo xamante ne dañoo am yéene ci téere borom bi li nuy bëgg def ci téere bi xajul ci bés bi ñu waroon waxtaanee suuratul xàq mu nekk saar wu màgg saar wu tedd nga xam ne lii dal suma rakk suma ma taalibe sànq min na noo dégg ab jàngkatu alquran mu toll foofu ku ci nekk di laaj boppam lan moo tax saar wii jàngkatu alquran bu koy jàng dina jooy ba du ko mën a àggali wala baatam dina suppeku ba yow nga yëg yow mi déggul arab wala joto firri alquran ci daara ja da ngay laaj sa bop lan mo xew lan la sunu borom di wax kon sar wi gën jaay tuuti laajoon na waxtu ak genn wal danu len di junjal lenn li ci ci li sar wi di wax ci fukki mit ak jilom ñu wat micro bi ndax giñ na ci suma borom ne limay neex moy tok di deglu gaay di jang alquran borom xam-xam yi di nu bégal ñépp di am mbégte suratul xaqa suratun makkiya ka saairi suwar al makkiya saar la goo xamante ne fële ca makka la wàcce mission nag mu nekk lan ca miin mooy mission bi nga xamante ne moom la nu miin ci saar yi makka ya tathbitil aqidati wal iman mooy saxal pas-pasu nit ki doomu aadama waaye ak ngëm yàllam dëgëral li nga xamante ne moom mooy gëm yàllam dëgëral li nga xamante ne mooy pas-pasam ndax jamono ji ñu toll yi mën a këf doomu aadama ci jamono dafa bari su xëyee ak su gontoo nit ñi nag du ma ne danoo réer yàlla waaye léeg ñu xaw a sàggan ba fàtte ne yowmal qiyaama mu ngi leen di yoot léeg nit a ngi toog di xaar élection 2024 te xamul ne janvier 2023 bi lay faatu lay génne aduna am na ku toog yittem yëpp mu ngi xaar 2000 mu ngi xaar 2024 te yëgul ne jamono jii may wax ak moom janvier 2023 bi lay génne aduna lay faatu kon kookee dafa jaadu ñu fëgg ko ne ko sëñ bi bàyyeel xel programme borom bi subhanahu wa taala saar wii ci loolee lay wax mu nekk saar woo xamante ne yàlla daf ko tuddee ci turu yowmal qiyaama ndaxte foofee lépp lu waay jàppee woon gént wala ay naxe wala loo gëmut woon bu yowmal qiyaamee nga cay teg bët yàlla daal di ñu koy tuddal nit ki nag su fekkee dafay sikki sàkk ndax loolee mën na am wala déet yàlla daal di lay fàttali loo xam ne xewoon na fi muy ay nit ñoo xamante ne ñu ngi tuddoon Samuud seen yonente tuddoon Saalix ñu moyoon yàlla yàlla daal di yebal benn malaayika mu daal di yuuxu seen kaw ñëpp daal di faatu benn yuuxu ñëpp faatu am na ci boroom xam-xam yi ñu wax ne yàlla dafa yebal jibril mu daal ñëw ba ca dëkk ba yuuxu rek ñëpp faatu am ñu ne déet dañoo xëy dégg benn yuuxu ca asamaan ñëpp daal di faatoondoo yàlla daal di ñuy nettaliwaat beneen xeet boo xamante ne aad la tudd yàlla yónni woon ci ñoom yonent bu ñu tuddee huud ñu weddi woon yàlla ba ñu weddee yàlla yàlla daal di yebal ci ñoom benn ngelaw boo xamante ne am na thamaniyata ayaam wa sabata layaal wala sabata layaal wa thamaniyata ayaam juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti bëccëg yoo xam ne ngelaw li dafa ñëw arrêté wul ngelaw li su doon ñëw ci ñoom dafay ànd ak bruit boo xamante ne dafay xotti seen tempaa yi ba seen yuur di wadd ci nopp yi ngelaw li dafay daggaale seen bopp yi ka annahum ajaazu naxlin xaawiya soo fekkoon garabu tàndarma bu taxaw nga dagg bopp ba noonee la ngelaw li doon daggee seen bopp yi di dugg ci seen gémmiñ yi di génnee ci seen buntu suuf yi fa taral qawma fiiha nga daal di leen gis saraa ay mawta halka laa xiraaka lahum nga gis loon ñoom ñëpp ñu daal di faatu fii la yàlla aw ak ñoom yàlla daal di leen fiy jël yàlla daal di wax ne wal mutafikaat ay wal munqalibaat ay nit ñoo xamante ne ñoom ñoo njëkke ci kaw suuf mooy yàlla boo xamante ne tey jii fees na ci àdduna muy góor jigéen jëmm ji waxtu wu nekk ngeen gis ko muy wax bokk na ci ñi jiite xeex bi ne du fi amee yàlla sax bëggut a tudd ñoom seen tur wal mutafikaat ay ña nga xamante ne dañu doon def defi ngóor jigéen góor di sëy ak góor jigéen di sëy ak jigéen yàlla daal di yebal ay malaayika te juróomi dëkk la woon ñu daal di yëkkati suuf si ba daal di jub asamaan daal dëpp suuf sax lu ñu doon def nguur jigéen lañ doon def wa jaa firaun wa man qablahu firawnu ljabbaar mu ñëwoon fi lu waaye am ci doole moo la ko ëppale woon ak buur ya ko fi jiitu woon yàlla daal di leen alag lan la buur bi subhanahu wa taala nam ci yooyee nettali li najalaha lakum tadkira wa taiyaha udunun waaxiya nee na yii ma leen nettali yépp dama ko bëgg a def mu nekk waarookaay wa taiyaha udunun waaxiya ndax ngeen mën a dégg mbokk yi jamono ji giñ naa ci yàlla ne ku xotti woon bàmmeel ya te yàlla uññil la kiiraay bari na ñu fa yuuxu bëgg dellu si ci àdduna gi pour mën a julli benn rakaa bari na ñu fa nekk bëgg dellu si ci àdduna gii benn ngoon la ñu am ñu ne nañ ko dem ci jotaayu alquranul karim ga mbokk yi tabax yi ngeen di gis yàlla wax nañu ne yowmal qiyaama am na nettali nañu ñoo xamante ne moom alag na leen mu ne kaay ma nettali leen luy ñëw bés a ngi ñëw dëkk lu mu naat naat lu mu développé développé yàlla buur bi subhaanahu wa nee ne فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة بسنجنو نيباي فاتو هذه النفخة إنها نفخة ثانية بسنجنو نيباي فاتو سو فاتو نك تي بامي يالا يالا ورلين ديكيل دادي يبل ملائكه بينكو افل ما بوفتو جي مو دادي جوك نفخه واحده وحملت الارض نين نيو دادي ييكتي سوفي نيو دادي ييكتي ليغا خامتاني موم موي سوفسي والجبال اك مونتاني فدكتا دكتا واحده نيو دادي لين فغنتي نيغي جيلي نياري ييري غا دادي كوي فغ بوسير بي ناو نونو لا نيو جيلي سوفسي اك مونتاني دادي كوي فغ فدكتا دكتا واحده fa yowma idi waqaatil waaqia bésam keroog da ngeen di jaay bëgguma xew rek xew am na am na ñoo xam ne ci xew rek la ñuy dox bésam kerook waqaatil waaqia xew am na wan shaqati sama asamaan daa di xar fa hiya yowma idi waahiya da nga koy gis mu mel ni lu nëb maanaam lu nëb bay toq asamaan noonee lay mel النفخة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة سيوم القيامة تخوي أخرجنا لهم دابة نيونغي 2022 دي يوتو 2023 te mandarga yi yàlla waxon ci làmmeñu yonent bi ne suñ ko gisee aduna ngi tukki legi mu jot akhrajna lahum dabba neena ma génne len ben njaay àlla tukallimuhum muy wax ak ñom di len xamal ne anna an-nas kanu bi ayatina la eh yuqinun yuqinuun wolu wuñu won la ya yàlla yi li alquran di wax amna ño xamne dañ koy waye wolu wuñu ko gëmuñu ko ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن كذبوا بآياتنا فهم يوزعون بس بغا خمانتنا خيط بونك دينا داجالي نيغا خمنا نيو يديون القرآن ما برلين يوزعون ندري لين توك لين برلين يلا بور سبحانه وتعالى نيلين أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما daf leen di woo ba dajale leen yow ak koo mën a yaakaar ci ñi wóoluwut alquran mu woo leen ba dajale leen mu ne la akadabtum bi ayaati walam tuxiitu biha ilma am maada kuntum taamaloon ndax da ngeen a weddi samay alquran te peekoo leen ko ci xam-xam wa waqaa alqawlu alayhim bima zalamuu yàlla daal di am dëgg ci seen kaw ay wa waqa al azabu alayhim léeg-léeg nga dem tribunal nga gis waa joo xam ne juge yi dañ koy laaj ba ñu yeey ko ci ne moom moo def ay crime moo def ay bàkkaar mu gis juge bay signé ne dañ ko war a tëj ay ati at nga gis ko na muy xamee ne moom yàqu na bii nag yàqu abadi la war a dugg safara sax ka fa hum la yantiquun lu ñuy mën a wax bu yowmal qiyaame duñu wax alam yaraw anna jaalna allayla mubsira anna jaalna allayla liyaskunu fihi wannahaara mubsira inna fi dalika la ayatin liqawmin yuminun فللا يوقنون لفي يؤمنون هذا هو حسن التناسق القرآني والجمال الكتابي والإبداع الكلامي بيغا خمنا مومنا بروم بي دي القرآن pour yàlla bëgg ñëwoon ne yowmal qiyaam am na mu ne xanaa doyu leen ne man maa jël guddi gi def ko ne set guddi ñu dee nelaw dee bu ndaw la maanaam ku gëmut ne nelawu bàmmeel am na xoolal ci guddi ku gëmul mbugalu bàmmeel laa jël ki am loxo bu métti wala ko am bëñ bu métti guddi gis nga soo amee loxo bu métti ni guddi giy guddee noonu la yéefar bàmmeel di guddee ci moom soo amee bëñ buy métti itam kadalik xana gisuñu guddi gii ma leen defal guddi gu nekk ñoom ñu daal de bu fajare ñu yewu wat wan nahara mubsira bëccëg bi ma def ko muy dekki manam sek fajar ma dekki len inna fi dalik inna fi dalika la ayatin li qaumi yu'minun lolé laaya ya ay kemtan la ak war way ñeel ñi nga xamantene gëm nañu alquranul karim gëm yàlla wa yowma yunfaxu ويوم ينفخ في الصور باتوا النفخة بوب لا سخلون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه إيه داخرين القرآن لا يعني بس بني أف بفتوغي ففزع دار تيت من في السماوات ومن في الأرض وأسمان أكواسوف ñéppay tiit illa man shaa allah lu dul ko ca yàlla génne yal na doon ña nga xam ne ñoom ñoo ngooy ci alquranul karim illa man ata allaha bi qalbin eh salim alqalbul salim mënoo ko am lu dul ci téere bii di alquran al karim xel mu dal feneen foo ko amee te raxut alquran wala mu waroog moom daf lay nax wa kullun atawhu daaxirin ay taaiina dalilin mu neex la mu naqari la da ngay dekki taxaw ci kanamu yàlla buur bi subhaanahu wa taala wataral jibaal wataral jibaala wa hiya tamurru marra saxaab nga gis montagne yi nga foogoon dafa ne jujju benn place taxsabuha jaamida nga foogoon du yëngu wa hiya tamurru marra saxaab ñu daw ngir yowmal qiyaam bi taxaw صنع الله الذي اتقن كل شيء مندوب يالا ميغا خامني ليپ لوم بيند داف كو رافيتال انه خبير بما تفعلون يالا اجي خام لا ليپ لو خامني ني تانكوي ديف بات نفخه كون مبوكي نانو توب ديلو سي يالا بور بي سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا yéen sama jaam yi nga xamante ne am na nanu fii ñu toog illa man rahima rabbi lu dul ku yàlla yërëm dëgg yaa ngi toogaale bàkkaar boo xamante ne bëggoo mukk mbooloo mi xam ko sa diggante ak sa boroom rekk a ko xam walla yaa ngi def ay bàkkaar ba daal di tiit يلا نين يومي تولو فوفو لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من بول ديكوراجي من مي سبروم يغفر الذنوب جميعا داماي بالي بكار يب تاب كتوب سونو اجي نانيو ديف تاي بيسوم توب مانام اتمي تاي ما نغيس نيو نان بان ريف nga am ak lo beug ci at at mi tey nan ko def atum tuub inna allaha yaghfiru dunuba jamia innahu huwa alghafuru rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah nanu gaaw jokk dellu ci yàlla jokku ci moom nanu gaaw jébbalu ci yàlla wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum aladabu thumma la tunsaruun balaa mbugal di dal sunu kaw te koo fi yaakaar du la dimbali من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فوفو لا يلا جيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم gaa yi léeg-léeg dañ koy firi ne alquran rafet na waaye topp ko topp gën rafet déet yaani annani rahmanu anzaltu kutuban samawiya ahsanuha ajmaluha alquran nee na damaa wàccee ay téere ba ca gën gën ca gën a mat gën ca ëpp tuyaaba ëpp ci man mooy alquran na ngeen ko topp ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen téere bi nga xamante ne moom la ñu wàccee jëme ko ci jële ko ci yàlla min qabli an yatiyakum aladabu balaa mbugal di dal seen kaw wa antum la tash'urun mbugal balaa muy dal suñu kaw te duñ ko yëg xoola baatu laa yuminuun laa yuqinuun laa tash'urun manam duñu ko yek kon mbokk yi maa ngi woo sama bopp di woo ñëpp nañ topp alquranul karim nañu jël sunu waxtu def ko ci alquran lu ñu bëggoon alquranul karim nan ko yokk lu ñu fonkoon alquranul karim nan ko foog yokk haadal kitaab ndaxte bi moy téere bi nga xamante ne fa wa rabbi samawati wal ard man xafidahu faz wa man fahimahu najaa ku mokkal le téré insha allah taala di nga muccu wala nga am ku ko mokkal wala nga sopp alquran di ca dox mbokk yi qissa bi may teje dafa am sama qasida bu siiw bo xamanteni ñu bari ci dong yi mokkal nañ ko muy asmaul quran fi madhil furqan fajar bi mako don bind dama ko bind ba ag ci ne yahdi ila karamin ahbab qari'ihi من جالس عجبا او حامي شعبي ma ne alquran dafay wommat jëme ci teraanga teraanga teddanga ñi sopp jëmm ji koy jàng waxuma ki koy jàng de ñi ko sopp sax ci teraanga ak teddanga lañ jëm min jaalisin ajaban ka toog ca jotaayu ajuba alquran aw xaamiya chia bi wala ñii taxaw di sécuriser sax insha allahu taala xéewaluk alquran day dal ci seen kaw ma daa di ne fil qabri saahibuhu nitu alquran ci bàmmeel ma ne nag maa ngi dëgg fit de daw ma bàmmeel de lu ma xam ilmul yaqin am na fi parce que jàng nañ ko ci xadis waaye aynul yaqin amul moom la Cheikh Makhtar di wax soo wékkoo ci yàlla am na fooy gagee yàlla yebal ku lay gàgganti gis nga bi ma àggee foofu ma xam ne dëgër fit a ngi ñëw parce que duggaguma bàmmeel sëñ bi ma daal di gàg teg xalima bi tëdd nelaw ci fajar gi fa wa rabbi samaai wal ard yàlla wan ma jëmm juy faatu ma dégg ay baat yuy wax naan def leen ko ndànk innahu min ahlil quraan takbir takbir sami'tu aswaatan turaddid tamahalu tamahalu innahu min ahlil quraan laa tu'duuh bu leen ko lor ñu rocc ruuxu bi ba pare sang ko sang ko di ko dugal ci bàmmeel ma dégg ci gént gi baat buy wax naan yaa turaabu tawassa'i innahu min ahlil quraan suuf yaatul bàmmeel nitu alquraan mooy ñëw ma dégg baat buy naan suuf woyofal ci kawam nitu alquran la sëriñ bi ma gis xéewal yi ba niñ ko xottilee buntam ci aljanna ci laa yeewu tiit këf dig bi ma ne fi lqabri saaxibuhu qaylulatul waladi min nicmatin kasurat ursun min atarabi takbir takbir في القبر صاحبه قيلولة الولد من نعمة كثرت عرس من الطرب sëñ bi dama ne bi ma yëkkati xalima bi ci laa wax ne nitu alquran su duggee bàmmeel moo gone guy nelaw bëccëg a yem ana aqulu hada amama almala fi lqabri saaxibuhu qaylulatu lwaladi min nicmatin kasurat ursum min atarabi nitu alquranul karim nii lay fekk bàmmeel insha allahu taala ka koy jàng ka koy jàngale ka ko sopp كيف كو خامن سا لن ولا سا بارام تقنا سي القران الكريم سيغ بي موتا كو ام القران الكريم لنن مانتا فيس بت اوب لولا واي مانا انديل nga تك كو تك كو سي دغ نكو نين توب القران طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تعلقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله في الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدمرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنست للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيد أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نق نق نغرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا لما القرآن الكريم بارك الرحمن فيكم ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ويركور وير القرآن كلا ميزون دي كوران أو سنغال فمن شهد منكم الشهر فليصم جنشي عندك كردبه تكستيل kembali di Sofia Al-Quran Senegalif fii moom mooy kër Dabakh Textile lépp loo xam ne jëm na ci euh, colka muy góor wala jigéen tisi boo ci bëgg rek fii kër alquran la këru tawfiq la soo fi ñooy fekk fi suñu mbokkum daara bi Cheikh Salih inchaa allahu taala lépp loo xam ne moom nga ci bëgg taaral xew yi macha allahu taala ñoo leen fii ci marché Dieng fii ci Pikine insha allahu taala lu ngeen fi bëgg rek dégg ko fekk insha allahu taala kon jeex na mu ngi daw Kër Massar Guédiawaye fépp waaye mën a nekk rek wooteel ci numéro bii ci suuf incha allahu taala ngeen ak si fi bu soobee yàlla